لما رأت يأس الطبيب وعجزه asalaamualeykum wa daru salaam bi boole julliti somon ngàpparu ak ngëriñ bambara ñooy ànd di woo jullit ñépp ci conférence bi ñu fas yéene amal temba di ana lu waral fitna yi lëmbe jamono ji ak lu koy saafara conférencier bi nag di al ustaaz Mor Kébé xafidahullah di ko ñu ràññee ci xam-xamam kañ la dimanche yemook 26 février 2023 ci bu 15 heures jotee ñu ngi koy amale ci internat bi jàkkarlook mairie bu Somone ngir yeneeni leeral mën ngeen a woote ci 76 017 41 50 77 443 33 04